maanaam day mel ni en ce dafa dagg ay émotion am ba du ko mën a percevoir waaye aussi du ko mën a sentir. kon type numéro 3 ennéagramme ñu gis ni nit la boo xamante ni dafay faral di identifier personne ci réussite sociale bi nga xamante ni moom la mën a am. kon moom mu ngi construire li nga xam ne mooy dundam mu ngi construire tamit li nga xam ne mooy personnalité am ak identité am ci. baada auzu billahi mina sheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin chers internautes ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ngeen ko xamee nag ñu ngi nekk ci suñu série Enneagramme comme ni ngeen ko xamee woon nag bi passé ñu ngi duggoon ci suñu centre émotionnel suñu centre émotionnel nag ñu defal leen résumé bu ndaw ñu ngi fa nekkoon ci ki nga xam ne mooy personnalité numéro 2 di altruiste wala l'aidant ñu daal di fas yéene dugg tey ci li nga xamante ni mooy suñu personnalité numéro 3 ñu koy wax le battant. kon ñu gis ni le battant nekk nit boo xam ne dafa émotionnel ndax ci centre émotion euh, centre émotionnel bi la bokk mais nag boo ko gisee doo mën a percevoir émotion am ndax dafay nekk koo xamante ni dafay centrer émotion am à l'extérieur ak à l'intérieur de soi mooy ci biti ak ci biiram ndax day bëgg a percevoir ses propres émotions mais aussi day bëgg a percevoir ñeneen kon nit la boo xam ne à première vue doo mën a gis ni kii nit bu émotionnel la parce que daf koy réprimander di comme dafay faral nag di utiliser centre émotionnel am lu bëri bu fekkente ni dafa stressé rek mën na bloqué wu. bu ko defee bu amee blocage rek dafay nekk nit boo xam ne dafay nekk nit bu coupé de ses émotions maanaam day mel ni en ce moment dafa dagg ay émotions ba du ko mën a percevoir waaye aussi du ko mën a sentir. kon type numéro 3 ennéagramme ñu gis ni nit la boo xamante ni dafay faral di identifier personne ci réussite sociale bi nga xamante ni moom la mën a am. kon moom mu ngi construire li nga xam ne mooy dundam mu ngi construire tamit li nga xam ne mooy personnalité ak identité am ci succès yi muy am ci àddinaam ak réussite yi muy am ci àddinaam. ndax loolu moo koy jox euh, sensation mu sentir que ni am na njariñ te euh, am na. existé na ci àddina bi kon problème bi bi ñu mën a euh, percevoir foofu mooy dafa am problème mu bu lié ak euh, dafay dafay dafay gaaw a yëg gàcce te tamit dafay am problème mu identification. kon le que euh, nit ki nga xamante ni mooy type 3 ennéagramme bi li muy yëg ci image am mooy image la bu war a am succès bu war a parfait la nit ñi dañu war a percevoir ci moom nit koo xamante ni ku jàmbaar la kuy atteindre ay objectif am la. kon le sens contraire mooy bu loolu image boobu bu ko mënul am rek day yëg benn genre gàcce comme nit bu inutile comme nit bu amul njëriñ kon ñu indi leen construction du mécanisme comme nañ leen ko defalee à chaque fois. kon déppi xale type 3 bi dafay remarquer ne à chaque fois mu am résultat yu baax par exemple ci école day tax ay waajuram di ko tagg ak di ko yëkkati di ko xamal ne jàmbaar nga. à chaque fois mu def dara accomplir dara luñ ko sant mu def ko defin bu baax. dañ koy yëkkati ak di ko tàgg ak di ko valoriser kon moom construction identité mécanisme bi mooy lan mooy ah pour ñu pour ma am importance pour ma nekk nit bi nga xam ni damay mën a satisfaire samay waajur nit nit nekk nit boo xam ne nit ñi dañ may gis ci image bu baax mooy dama war a réussir parce que à chaque fois ma réussir à faire quelque chose samay waajur dañ may valoriser dañ may yëkkati et dañ may jox importance à chaque fois mu gis ni dafa am échec dañ koy xëy na humilier wala dañ koy xas wala dañ koy rabaisser wala dañ koy xamal ne xamoo dara kon moom dafa teel a percevoir que ni pour mu nekk kenn mooy ay succès rek moo ko mën a def mu doon nit bu am importance kon ci xaleel le mécanisme boobu construire te construction de mécanisme bu ñu ko waxee c'est dans le subconscient ceci dit que nit ki dafay agir inconsciemment parlant li muy def moom yëgul yëgu ci lu bëri du coup li muy def mooy li koy motiver li nekk ci ginnaaw moom yëgu ko xamu ko donc mu ngi jëf parce que rek loolu mooy li nga xam mooy motivation ci at kon ñu gis ni dafay teel a détecter li nga xamante ni mooy euh, nit ñi koy jox reconnaissance sociale ci environnement wam selon ak li nga xam ne mooy li mu mën a apporter nit ñi kon ñu gis ni type trois bi dafay am problème mu adapté wu ci yenn environnement yi bu fekkente ni environnement boobu moom mënu fa élever wu wala mënu fa am am succès kon moom tout le temps day fexe ba ay jëfam di correspondre ak li ñuy li nit ñi di valoriser ak li nit ñi di bëgg kon li nit ñi di xaar moom day fexe ba ay jëfam di ànd ak loolu pour mu mën a am valorisation. kon ni muy gisee àddina rek mooy filtre yi nga xam ne mooy filtre reconnaissance sociale yi ak succès yi. kon comme ni may waxee naan ñun ñun ñëpp dafa am na ñuy gisee àddina am ki nga xamante ni muy gisee àddina mooy dama war a jàppale nit ñi mooy aidant bi ñu paasee perfectionniste bi mooy àddina bi dama war a fexe parfaire mooy perfectionniste bi médiateur mooy jàmm kon dama war a fexe jàmm am mooy moom mooy mooy médiateur bi leader bi di wit bi moom dafay wax ni man dama war a fexe am force pour défendre nit ñi pour défendre sama bopp défendre sama intérêt euh, ñu gis ni battant bi moom danaan ah pour ma am nekk nit bu am importance dama war a fexe accumuler ay succès. kon ñu gis ni ci société bi nga xam ne tey ci la ñuy dund la plupart euh, loolu malheureusement mooy surtout ñun ñi nga xam ne ay africains lañu surtout ñun ñi nga xam ne ay sénégalais lañu. ñun dañuy faral di construire ay battant yu bëri parce que sa doom bu nekkee xale doo accepter échec am da ngay fexe ba xale bi du accepter échec am à chaque fois mu échec rek da koy xamal ni moom du dara mais à chaque fois mu indi succès da nga non koy xamal ni macha allah mais da koy tiitaroo sax ci kanamu say xarit ci kanamu say mbokk ci kanamu ñëpp bu ko defee xale bi teel a percevoir que ni d'accord kon man pour ma doon nit bi teral samay waajur mooy dama war a am su ma amee succès rek sama samay waajur dinañ kontaan ci man te àddina bi nañ kontaan ci man kon loolu ñun ñoo ko créé malheureusement. kon ñu gis ñu ñëw ci force ak su type 4 bi ñu gis ni nit la bi nga xam ne dafa njaxlaf nekk tamit nit ñu bëri activité bëri ay dugg-dugg bëri ay génn-génn mën a lijjanti dañuy bëgg aussi di entreprendre beaucoup de projets bëgg a defandoo lu pour bëgg réussir tamit ci li ñuy def kon ñu gis tamit ñoom lu ñu mën a fexe pour lu ñuy def am succès mën a réussir dañ koy def te côté boobu moom. njàmbaarte ak njaxlaf luñ ci mën dinañ ko def. kon ñu gis ni la plupart ci type 3 yi dañuy fexe di def ay métiers yoo xam ne visibilité dafa am solo visibilité mën na nekk tey par exemple ay nit yu diriger ay euh, mbooloo wala nekk chanteur wala nekk euh, acteur du cinéma wala nekk euh, métiers yi nga xam ne daal ku ne xam ne ni gis leen ma moom lu fay yomb la ah nit lañ yoo xamante ni nekk ci kaw métiers yoo xamante ni boo fa nekkee dañ lay mën a gis kon ñu gis ni kon métiers yoo xam ne siiw dafay yomb. nit ñi dañ leen di topp loolu tamit day nekk métier yu ñu yu ñu yu ñuy inspiré kon ñu gis ne star yu bëri wala politiciens yu bëri ah wala youtubeurs yu bëri wala influenceurs yi nga xam ne macha allah visibilité tout fa métier yooyu daf leen di faral di attiré depuis ñu nekk xale da ngay gis ne dañuy bokk ci xale yi nga xamante ni ñoom dañu bëgg siiw tey xale boo xam ne tey par exemple mu ngi jàng day jàng bëgg na liggéey. tey boo juree ay doom yu bëri di nga gis ci dinga am du ñàkk xëy na bu dee am nga doom bu batan ah, di nga gis ne kii siiw la bëgg dalay wax naa man su ma màggee ba am xaalis su ma màggee ba siiw su ma màggee ba lii donc ay waxam yëpp da nga dégg siiw dafa war a siiw kon moom lu muy def bu siiwul pour moom baaxagul fokk mu siiw pour mu baax kon ki nga xamante ne mooy personnalité type 3 bu fekkente ne tout va bien et que nekk nit bi nga xam ne tamit day utiliser aspect positif yi ëpp ci moom dafay motiver wu day nekk nit bu motivant day nekk nit kuy mën a motiver ñeneen ñi bu ko defee côté boobu day xaw a nuroo ak numéro huit numéro leader mais ñu am différence te bu ñu duggee ci biir di ngeen gën a gis différence yi da des fois personnalité dañ leen leen di xaw di jaawale ci seen énergie fekk na leader bi dafa dafa dafa instinctif trois bi dafa émotionnel mais da ngay gis trois bi le fait que muy nëbbee émotion am le fait que aussi mu njaxlaf bëgg succès bëgg euh, et mën na ndoog leader l'unique chose mooy leader bi inspiré wul ci succès mais day inspiré ci défendre des causes inspiré aussi ci protéger les faibles kii moom dafay inspire ci succès personnel am moom ci boppam moom la jëm lijjantiwul ñeneen ñi. kon ñu gis ni tamit ba tey battant bi comme ni ñu ko waxee vu que dafa bëgg succès képp ku koy jege ku ko mën a apporter succès dalay ci wetam et tamit nit la bu capable aussi euh, nekk cause réussite yu ñu bëri. comme niñ ko waxee bu fekkente ni tey am nga jom njaxlaf nga aussi du hésiter teg la ci wetam pour ngeen ànd vers le succès mais lu l'unique chose mooy succès bi moom yow waroo nekk ci kawam déedéet. mën nga am succès mais quand même doo nekk ci kaw. ñu nekk tamit ay nit yu ambitieux ay nit yu mën a jël ay projet tamit yu am utilité ci société bi ay projet tamit yoo xamante ni macha allah dafay nekk ay projet yu yu yu jëriñ waaye tamit ñu gis ni numéro type trois bi dafa nekk ki nga xamante ni tamit dafay euh, bëgg réussite mais aussi dafay bëgg approbation société bi moom réussite am tant société bi yëguñu ko tant que nit ñi tooguñu di waxtaanee réussite am moom pour moom réussir agul kon dafa am réussir sa vie am nga liggéey bi stable tout va bien moom loola doyul moom dafa soxla nit ñi reconnaître que ni am na succès dëgg la nag la plupart ci nit ñi bu ñu sañoon ñu am reconnaissance sociale mais ñoom seen bés dafa gën a excessif parce que am ñi nga xam ne reconnaissance sociale ça ça ça leur importe peu yeneen personnalité par exemple ñoom reconnaissance sociale nekkul loo xam ne daf leen a sonal mais moom bu ko amul du mën a nekk à ci réussite kon ñu bëgg ñu nekk ay nit yoo xamante ni tey dañu bëgg ñu leen di tàccu dañu bëgg ñu leen di yëg parce que loolu dafay bokk ci seen lu leen di dundal. kon ñu nekk ay nit yu jàmbaar ñu laf ñu bëgg liggéey liggéey du leen sonal te mën nañu jël seen vie yépp tourner ko autour du travail tey da ngay gis ne bu dee jigéen la tey projet àddinaam moom liggéey bi lay jiital liggéey bi mooy tegu ci kanamu lépp même bu dee góor la liggéey bi mooy tegu ci kanamu mariage mooy balaa may marier je dois atteindre ça balaa may am doom wala jabar dama war a def lii kon pour moom mën na liggéey ba 40 ans te du xalaatagum am jabar muy jaaxal nit ñi parce que moom il va réussir même bu dee jigéen la réussit bi moo jiitu réussite bi c'est au de tout le monde parce que sa c'est important pour mooy seen essence mooy seen dund mooy li leen di dundal mooy li tax ñu yëg am nañu importance ci àddina bi kon nañu épargner jugement yi parce que comme ni ñu ko waxee chaque caractère yàlla moo sàkk nit ñi ci seen caractère après nag caractère comportement bu nekk dafay nekk loo xamante ni tey mën naa am ay défaut am ay qualité léegi nag défaut yi c'est à travailler euh, qualité yi lu ñu war a tamit euh, reconnaître la parce que comme ni ñu ko waxee type ennéagramme yi amul bii moo gën bii bii moo gën bee ku nekk sa personnalité da nga koy accepter parce que mooy lay définir boo ko accepté wul doo am évolution jamais de la vie parce que tu ne t'acceptes pas quand tu t'acceptes tranquille da nekk en paix avec toi-même et que xam ni say qualité lu am solo la ci àddina bi moo tax yàlla aidé la ci àddina bi pour tamit nga am fi sa rôle à jouer kon tamit euh, type 3 bi nekk ku mun a ku mun a wane wane ay réalisation am boo ko xamee li ngay njëkk a gis mooy moom daf lay wan li mu liggéey li mu atteindre li mu jëf ak li mu xam ak li mu mën donc loolu da nga koy remarquer ci ay waxam ci ay jëfinam nit ñi nag bu ñu comprendre mun nañ faral di wax ni ki dafa mën a wanewu wala ki dafa mën a wax ci boppam ki dafa bëri mën a mën a fekk na loolu moom defu ko pour mal intentionné defu ko pour wàññi la defu ko pour xeeb la mais def ko def pour wan la ni moom euh, lii mooy objectif am lii mooy motivation am et que lii yi li nga xam mooy moteur essence am. ñun euh, type bi tamit nekk nit bu social nit bu amay relation yu important yu dëgër parce que moom boo koy côtoyer da nga war a nekk nit boo xam ne da ngeen di bokk vision succès daf la war a yitteel bu la yitteelul yàgg moom seen ànd du sori parce que moo tax moom dafay fexe ba vraiment ñu koy côtoyer ay nit yu am jëmuwaay bu sori la ñuy doon. ñu am aussi intelligence de communication maanaam nit ñu neex làmmiñ ñu mën a wax macha allah bu ñuy wax ak yow da ngay gis ni tey mën nañu convaincre seen interlocuteur mën nañ ko changer loo idée parce que dañu xam luñ bu ñuy wax dañuy xam lañuy wax et que mën a wax ak yow ba nga xamante ni lu ñu fu ñu maanaam tey buñ la doon jaay dara dañ la koy jaay par force amoo issue favorable parce que dañuy insister te dañ lay jox ay preuve à l'appui yoo xam ne yow ñu la bëggee jaay dara yow amoo rëccuwaay kon dañuy wax ne ay nit lañ yoo xamante ne naturellement dañu am don de la communication dañu mën a adapté wu selon nit bi taxaw seen kanam d'habitude tamit ñu nekk ay nit yu réussir seen vie professionnelle la plupart du temps kon mën nañu gis ne type 3 bi problème am mooy comme dafay adapté wu pour conforme ak société bi ko wër ak environnement bi ko wër. mën nañu am impression que ni dañuy jouer ay rôle di jouer ay rôle. yoo xamante ni tey moomuñu ko maanaam dañu takk ay masque social yu bëri pour mën a adapté wu pour mën a tamit euh, mel li nga xam ne moo conforme ak société bi pour am lu ñu bëgg. bu ko defee ne dañuy seetlu nii type trois bi intérieurement mën na nekk nit boo xam ne day am sensation boo xamante ni de manque parce que tout le temps benn sensation de vide parce que dundul la vrai soi. mais dafay fexe di adapté wu ak euh, société bi li ñu bëgg li nga xamante ni tey moo koy jox succès vu que dañuy maanaam sëgg rek euh, gëmm seen bët pour atteindre seen objectif dañuy fàtte réellement seen ay désir lu ñu bëgg wala lu ñu war a dund dañ koy ignorer. mën nañ dem sax ba fàtte seen identité fàtte seen vraie personne dem tamit faral di dagg maanaam dagg seen ay ressenti intérieur dem ba nga xam ne dañuy couper sa couper de ce qu'ils ont besoin sa couper aussi dagg seen bopp ci li nga xam ne mooy seen ay yëg-yëg ak seen ay compulsion ba pare bëgguñu di yëg cet sentiment de honte maanaam dañuy fexe euh, daw li nga xam ne mooy sentiment wu gàcce wala kersa surtout bu fekkente ni àggaguñu fi ñu bëgg a àgg ci seen carrière wala amaguñu succès bu ñu bëgg a am. kon ñu gis ne type 3 bi euh, gàcc honte bi muy yëg tout le temps di yëg kersa di yëg benn gàcce comme si c'était tekkiwuma wala jëriñu ma dara wala nit ñi gisuñu ma ci benn bët bi loolu. construction mentale boo xam tout le temps day jéem a xool source bi wala fan la jóge wala lan moo ko waral te loolu du dara lu dul le fait que tey mu am benn vision bu sori pour àgg fenn fi bu fa eggul rek day am benn sensation de gêne kon li ñu koy wax mooy na ralentir mu xam ne àddina bi njëkkantewul ak kenn concurrence wul ak kenn boppam rek na ko doy waaye tamit mu jéem ma fexe di jox boppam utal boppam ay valeur xam ni valeur yi nga xam ne mooy valeur de l'être humain c'est ça qui va le déterminer. parce que le fait tey mu euh, type 3 bi gis lan mooy ay valeur am ak lan mooy sentiment yi muy am yi gën a profond dina ko may mu mën koo collaborer ak li nga xam tamit mooy activité am ak vie de euh, de tous les jours pour bañ a gaañ boppam. et que bu boobaa tamit dina mën a yëg sincérité ak authenticité te moytu yenn piège yi nga xam ne tey euh, boo authentique mooy da ngay fexe conforme ak ñeneen ñi fexe takk ay masque pour ñeneen ñi bëgg la et bu boobaa tamit day doo nekk soi-même te boo nekkul soi-même da ngay souffrir. aussi éviter di ut ay quête de reconnaissance sociale parce que tamit sa sa reconnaissance sociale ça t'appartient le fait que tey nga ut reconnaissance euh, ci nit ñi utal reconnaissance ci sa bopp. nga xam ne nit ñi c'est pas obligé ñu reconnaître yow yaay kan wala reconnaître say succès kon ñu gis li nga xam ne tamit mooy défaut wu numéro 3 mooy dañu nekk ay nit yu contrôlant ñu gis ni ñenn ci type 3 yi le fait que tamit ñu bëgg a renvoyer benn image sociale maanaam wala benn image dañuy nekk ay nit yoo xam ne dañuy contrôler seen bopp lu bëri contrôler tamit ñeneen ñi bay moytu di mel lu contraire ak nit ñi di xaar si ñoom li gën a yéeme mooy mën nañu contrôler image sociale seen jabar wala seen doom maanaam ñoom dañu bëgg a refléter image bu parfait maanaam sama jabar dafa parfait sama doom dafa parfait kon lépp lu jabaram di def bu fekkee ne société bi daf koy gis bët bu ñaaw jabar ji da koy du ko may jàmm mën na ko toxiquer mën na ko waaw da nga bëgg nit ñi wax ma lii da bëgg nit ñi def ma lii tax ngay def lu tax ngay mel nii lu tax ngay wax lii mën ñu nekk ñu am tamit problème boo xamante ni tey euh, bu fekkente ni réussite bi ñu ut amuñu ko mun nañu ut ay maanaam raccourci maanaam raccourci mooy lan mooy tey damay réussir mbaa ma réussir ma ma réussir mbaa ma réussir googu am na ci ñoom ñu capable dem ci sëriñ ut succès am na ñu capable tey sacrifier quelque chose am nañ ci ñoom ñu capable ñoo xamante ni tey euh, mën nañu egg ci yenn yu ignoble yi bëgg ñu dugg dans les détails mais junj doy na borom xel kon quête de réussite boobu tey ki nga xam type 3 la bu gëmul yàlla. parce que lu gëm lu am importance la ndax day yi personalité bi am na ci ñoo xam ne dañu gëm yàlla di coup seen doole lañ yaakaar et que dañuy dem jusqu'au bout mais am na ñi nga xam ne tey le fait que amuñu spiritualité amuñu ngëm yàlla bu sincère dañuy dem ci sëriñ seen seen réussite sëriñ lañ ko teg ci manipulation ci fen ci chantage ak tamit des fois le fait que ñu nekk ak ay nit ci service wala ci dara gis kooku atteindre succès ñoom eggaguñu foofu dina leen jaral ñuy jaxase kooku di ko yàq di ko mm, fexe yàqal ko foofu ba moom mu egg ci kaw euh, dañuy am tamit jalousie parce que bëgguñu kenn ku leen jiitu parce que loolu tamit mooy ñi nga xamante ne type 3 lañu mais amuñu spiritualité aussi ñu ngi nekk ci côté immaturité parce que type 3 bu maturé rek nit la boo xamante ni macha allah dafay bëri ay bienfait mais bu immaturé moom day nekk nit boo xamante ni d'habitude euh, vraiment dafay insupportable surtout ci côté couple mooy tey dafay fexe moom le fait ni muy dundee di jël ay image yoo xam ne moomu ko pour créer image bu parfait bu société bi naan ah diw de moo nangam sangam ah diw de ja macha allah day bëgg tamit même chose ñu koy wax ci jabaram bu jabaram bëggee dund viom réellement comme ni mu ko sentir rek loolu da koy jural frustration ba dina ko jural conflit ak jabaram même doomam tamit da koy jéem a condition conditionné à ce mu conforme ak image sociale boobu kon ba ci jabar ji ni muy soloo da ciy faral di ci insisté ni nga war a sol nii nga war a mel image bi nga war a refléter ba ci doom yi tey mën na fexe doom yi nii la ñu war a sol di lijjanti lu ñu war a sol nu ñu war a mel ak tamit école yu ñu war a jàngee ah école yu macha allah la war doon ah sama doom mu ngi jàngee te école pour ñoom succès la ah sama jabar mu ngi liggéey teel mel yëpp pour ñoom succès la mais tamit jabar ji waru ko sut réussit parce que da ngay gis si type 3 bi tey booy séeg moom dalay wan ni carrément mën naa la jàppale nga réussir mais pas plus que moi tey boo ma naree raw damay yàq sa réussite parce que nag waroo réussir plus que moi kon ñu xam ni vu que lii ci sa personnalité la bokk bu dee danga am immaturité te yaa ngi nekk ci zone d'ombre yi c'est à travailler parce que toutes les personnes dañuy évoluer te bu dee da nga am musiba yi da ngay jéem a évoluer te xam ni ku nekk am nga say défaut il faut juste l'accepter pour y travailler ngay góor ngay jigéen. ah kon ñu gis ni type trois bi vu que tey ñi ko jege ñi ko wër mën nañu briller mais war ñu ko gën a briller waruñu ko gën a élever. kon ñu gis ne aussi nit la boo xam ni boo nekkee ak moom di seey ak moom yow di sa jëm bopp da ngay arriver à percevoir que cette personne là liggéeyam la gën a jox importance que moi image am la gën a jox importance que moi kon mën nañ ne nit la ñu narcissique de base narcissique de base bu ñu ko waxee mooy nit la ko xam ne dafa bëgg boppam bëgg boppam bëgg boppam moom boppam rek même buy joggati ci sa kaw honneur pour atteindre ses objectifs il va le faire moom yëgu ko ah. yëgu ko boo jàmbat tey naan ko lii ak lii nga ma def moom yëgul ni def na la dara pour moom c'est tout à fait normal nit ñi mën nañuy kaas mën nañuy jàmbat mais moom il na le voit pas li muy gis mooy yow da ngay victimiser wu nga bëri problème moom li mu def mooy juste atteindre ses objectifs même bu dee dafa aw ci sa kaw même bu dee dafa teg lu metti mais yow tu n'as qu'à accepter kon nekk ak ñoom aussi dans l'intimité c'est quelque chose d'éprouvant bu dee encore une fois nit ki amul maturité te amul diine ñu nekk tamit ay nit yoo xam ne tey bu ñu la jalouser wala ñu gis ne yaa ngi leen di romb surtout ci ñi nga xam ne daf dañ dañ leen a jege mën na nekk frère et mën na nekk jabar mën na nekk collègue mën na nekk kii que ce soit mais bu ñu gisee ne yow yaa ngi leen di bëgg a romb rek bataille lañ lay déclaré bu bu inconscient guerre boo xamante ne ger bu subtile pas benn guerre ouverte déedéet guerre boo xamante ne dafay subtile ba nga xam ne yow tu arrives à le percevoir mais tout le temps da koy affiché ak reetaan ak faux ak manipulation ba yow boo yeewul dëgg doo gis ni kii daf la bëgg a yàqal la bëgg a wàccee. loolu yëpp lan moo ko waral ñu bëri mën nañ ne soxor la déedéet du soxor peur la peur bi mooy lan mooy peur que ni moom boo réussir da koy nëbb image am maanaam da ngay nekk moom day nekk sous ton ombre te moom bëggul nekk ci ombre kenn dafa bëgg a kon ragal googu muy sentir ni tu le menaces c'est pour ça mécanisme yi de yi dafay ñëw pour wàccee la moom pour mu yéeg kon bu ñu comprendre lii rek kenn dootul juger kenn. kon ñu gis ni nit la aussi boo xamante ni vraiment si tout va bien ba mu egg niveau maturité travail spiritualité am diineem nit la ko généreuse. nit la aussi ku mën a jàppale nit waaye dañuy gis bu stressé woo nit la bu dur nit la bu mën a dëgër bu mën a mën a mën a ra am ku nekk en compétition maanaam compétition ni ko xam wujje ku mën a wujje la bu dee jigéen moom daanaka lu yàlla xam doy rek bu dee góor kenn waxaale ko kon bu fekkente ne rivalam nga jël ay talaam ak ay comp ak ay compétition am détruire la ba teg la ci suuf ba fay la ak naan ci ndox mi la yemal kon ñu gis ni tey personnalité type 3 bi mën na yàq sa image di répandre ay rumeur di wax ci yow wax yu ñaaw ba yàq sa image uniquement pour wàccee la pour fay la parce que dafa gis ne yow yaa ngi koy gën a exceller te bu boobaa day utiliser yeneen nit di leen sax ñooñu di yóbbu wax ji di ko di ko véhiculer moom dafay mel ni moom mosu ko wax wala moom deful dara bu ko defee sale boulot bi da koy faire travailler par les autres. ñu gis ni tamit nit la koo xam ne ko mën a tromper nit la ku mën a comme ni ñu ko waxee encore une fois bu nekkee ci niveau inconscient bi nekk ci niveau boo xamante ni dafa immature day nekk nit ku mën a fen ku mën a manipuler ku mën a tromper aussi nax nit pour am li mu bëgg. kon ñu gis ni la plupart ci type 3 bi balaa muy fen ñeneen sa moom boppam lay njëkk ko fen day tranquilliser boppam gëm la boppam que ni moom moo sut nit ñi moo leen gën a rafet moo leen ëpp alal moo am lii moo xam lii moo mën lii ba buy wax da ngay dégg tout le temps day valoriser jëkkëram valoriser sëyam valoriser doomam valoriser liggéeyam moom daal ñu ko wër ñëpp lay solal image parfait waaye yow bu la buggul dalay saltel ba nga salte te buy wax ci ñeneen tout le temps day wax ci ñeneen ñi di leen rabaisser nga seetlu ni buy wax ci boppam day wax ci boppam di yëkkati boppam buy wax ci doomam day wax ci di yëkkati doomam et pourtant bu nekkee ci biir koko ñooñu muy tàgg noonu bu nekkee ñoom daf leen di rabaisser pour yëkkati boppam kon nit la buy automotiver boppam maanaam dafay faral di motiver boppam ci ay discours yoo xamante ni c'est vraiment erroné waaye tamit ñu gis ni nit la boo xamante ni tey bu amee introspection maanaam bu amee capacité di xool di déglu boppam di gis ay jëfam nit la tamit ku mën a accepter réalité bi accepter li nekk ci moom xam ne kat ah tout n'est pas rose li muy gëm la boppam amul bu ko defee mu nangu li nga xam ne mooy li xew te du am problème mu nit ñi nuñ koy gisee. te boobaa tamit dinañ gis ni dina gën a mën a nekk nit bu discret te du faral di affiché wu wala di wane wu wala di mën a mën a parce que là dafay atteindre maturité. te boobaa dañuy gis nit la kuy accepter euh, li nga xam ne mooy ay difficulté am kuy tamit ay défaut am lañu mais tamit ñu gis ni vu que moom échec la gën a ragal dañuy gis ni bis bu demee ba àgg maturité travailler ses défauts nit la tamit kuy accepter échec ba tey ñu gis nit la ko mën a dëggu bu demee ba sincère ak boppam accepter introspection am commencé atteindre maturité mën na dëggu ak boppam mën na dëggu ak ñeneen ñi. kon ñu gis ni tamit trois bi bu nekkee tey ci euh, image professionnelle man euh, ci milieu professionnel nekk ak ay am liñ koy dénk rek mooy na fexe liggéey ci boppam ndax bu dul loolu tey dina susciter beaucoup de jalousie ci milieu boobu. dina fexe aussi di accaparer méritu ñeneen ñi dina fexe aussi liggéeyloo ñi nga xamante ni dañu inconscient pour jël mérite bi euh, par la suite dina fexe aussi di am ay succès yoo xam ni euh, des fois sax liggéey ko bien vrai moom liggéeykat la jàmbaar la ah dafay teggal boppam ay baar yu haut te da koy atteindre mais aussi ñu gis ni comme niñ ko xamee àddina bi du liggéey rek moo fi nekk dund tamit mu ngi fi xàppi mu ngi fi aussi bu boobaa mu wàcc tuuti xam ni succès rek nekkul ci àddina bi te ku nekk sa succès dafa relatif sa succès du succès keneen kon il faut que tamit nga accepter toutes ces choses là. beneen bi tamit euh, trois bi ñu di ko wax nii tey booy liggéey ci entreprise boo defee défaut wala échec wala nga def dara mu yàqu. bu ko jiiñ ñeneen ñi wala nga ne c'est de la faute des autres parce que d'habitude droit bi bu immaturé du nangu ay échec ba pare dafay faire porter le chapeau par les autres fexe ba taqal image yu ñeneen ñi mais moom du ci bëgg a taq loolu tamit jukko la boo xam ne jukko lâche la ngeen baal ma jox ji parce que nit ki tamit en ce moment il faut accepter ses ses propres démons. kon ñu gis la plupart du temps euh, en tant que type 3 mun nga atteindre euh, niveau valeur ak qualité yu am solo macha allah mais aussi boo deful introspection. mën nga gaañ mën nga gaañu kon li nga xamante ni tamit mooy maladie yi leen di faral di yëpp ci DSM-5 bi comme ñu ko xamee rek mooy trouble narcissisme bi wala personnalité pervers narcissique parce que ce sont des personnes yoo xam ne ils sont capables de nuire l'autre pour atteindre leurs objectifs wala de vendre l'autre pour atteindre leurs objectifs du coup ñu daal di ci bàyyi xel di wax ngeen abonné partage vidéo yi accepte suñuy part d'ombre ak suñuy part de lumière pour pouvoir travailler sur nous kon ñu ngi leen di salaamaaleykum wa